Jacob Balde Jacob nee na da koo daw. kan ba pare bu ngeen jël maalo. nee na moom du ko nangu tey du ko. kii ne ko mu Jacob moo ngi nii quatre combats la am. nit ñi bañ koy mënoo jaay bolok yu jaay mënoo indiwul. sëñ bi man bañ a dugg nangu. may kii Taaliba Maam Saliou Fall warul yow xool nga xool da ngaa dof yow lamb la bàyyi leen bàyyi leen eh. ndeysaan yëngu na nee na ko kaay laa ilaha illa laa ilaha illa laa déedéet gi làmb gi ni ndeysaan mu ngi noonu taxaw bi muy wax ak man. ndeysaan